si diwaanu Touba tamit am na ay xew-xew yoo xam ni kii nañ ko fa euh, ñu ngi ko fa doon jàmbat si lu demee ni ma couvre-feu bi nga xam ni le président de la le le ministre de l'intérieur décrété woon na ko ñu gis ni am na ay samba yi nga xam ne dañuy profité si loolu di def ay ñaawteef di songu alalu jàmbur yi loolu nag ba mu amee le commissariat spécial de Touba. am na ay jumtukaay yu mu si defoon amoon na ay dispositifs yoo xam dispositifs yoo xam ni tegoon na ko pour jàmbaar ñooñu loolu permettre ni ba si ci guddi 6 au 7 avril am benn band bu fukki nit ak ñaar dont cinq receleurs juróomi nit yoo xam ni dañ la ñu toppee maanaam dañaa euh, yombal sàcc gi dañaa jël yëfu jàmbur luubal ko yombal euh, ndey sàcc yi démantelé woon nañ leen foofu noonu bañ leen démantelé ñooñu li ñu doon def mooy cambriolé lu demee ni ay boutique alimentation générale lu demee ni ay ay bijouterie boo xoolee xayma ko yëpp yëpp am na lu toll ak fukk juróom-ñaari victime ñoo xam ne ñii gars yi songoon nañ leen jël si seen alal ba ñu leen dégloo tamit parce que ñooñu ñu ngi doon jum ñu ngi doon am jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy te jumtukaay yoo nekkul leen lu dul charrette ak ak fas. donc doo ko mos a yaakaaree ni ñoom loolu mooy seen mooy moom la ñuy moom la ñuy def mais ba ñu ko gëstoo ak benn vidéo surveillance bi nga xam ne moo ñu permettre ñuy leen yoon teg na leen loxo ba talaata bi passé lañ leen jébbal procureur beneen euh, mbir mi nga xam ne amaat na si liggéey bii nii si euh, couvre-feu bi ñu nemmeeku ko si mooy am na ay dawalkatu oto ak ay dawalkatu moto yi nga xam ni sàmmante ak li nga xam ni moom la ministre de l'intérieur wax. muy arrêté bi nga xam ni mooy tere dem beeg dikk diggante dëkk ak dëkk ba nga xam ne am na ay samba booy lañ la mën a ooyee sax parce que képp ki nga xam ni sàmmante woog ndigalu autorité bi samba booy lañ la mën a ñooñu ñu ngi si doon def benn liggéey di jël ay nit ci biir dëkk bi fii Touba di ko jëmale fu mel ni Diourbel Daaru Musti ba dakaar ba ñu ko xamee nag def jël nañ suñu dispositif jël nañ suñu matukaay ba nga xam ni permettre nañu ñu jàpp si lu mat ñaar fukki nit ak juróom ci biir ñaar fukki nit yooyu noonu ak juróom-benn yi mën nañ wax ni fukk ak juróom-ñaar yëpp ay sofooru oto lañ oto yi nga xam ne ñu ngi koy wooyee War Gaynde wala alo Dakar juróom-ñeent mu nekkoon ay conducteur moto Jakarta yoo xam ni ñoom tamit si loolu lañ doon def di jël ay clients fii di koy yóbbu si loolu ginnaaw bañ leen dégloo jëbal nañ leen procureur si fan yii nii ñu ngi la ñuy jaaraama di leen jël